bokki daara ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi fas yéene li siwaat ngir fas yéene fàttaliente yéen ci boole alquran te ñu ko ànd ak seen mbokk daara mu yox Moustapha Cissé ñu baaxoo ànd ak yéen ci bis boole tey war a nekk nag sunu bindub téeméer ak ñett moo ci robo ji boole wi jëkk mooy wabni sabili juróom la waaye wabna sabili yett la kii la wabni sabili ñoo ngi koy tënk lali lani labara wabna sabili ñoo ngi koy tënk laliru suñ ci jógee teg ci mboole wu ñuy wax ndog daanu njeego dañ koy tënk fii xata fii xakka laali ji incha allah kon ñu andi boole yooyu bis boole bi ñuy njëkkee mooy wabna sabili yatla laliru laan lisrai ruumi wabna sabili yatla laliru laan lisrai ruum wabni sabili juróom lani labaha laan nisai lan faal baraan xasri wabni sabili muy marka suuf yi juróom la moom nas sabili yatla laliru kooku moom marka kaw la kon ko noonu ñaari boole yi wabna sabili ji wabni sabili bu dee wa biñ bi mooy lani labaxa laan jigéen lanfaal baraan xasri bu dee wab na sabil nag lali kon noonu la bu dee dog góoru jeego la waaye nag bu yëpp ndax bari bari yoo xam ne boo ko dogee daanu te waaye yi gën jekk ci ñoot kiiko ko rek yooyu lañ lañ ci génne waaye du yëpp lañ mën a andi yi ci ci dog ko te du yooyu lañuy waxam mooy fii xakalaali ji lañ koy tënke mooy filmi haadi ma nga lan fa alqahaaru ak kaafiru yëpp nga ca raat suuratu saali laa taxaafu ma nga ca ak lil xaasiyati ca sumar ak jihaadan ci limtihaani muy suuratul mumtahaati dog jóoru njeego waaye nag bàjjo bàjjo la fii xakalaa ligi filmi ha di lan faal xaaru kaafiru yëpp a ngarax di laa taxaafu ca tooxee lil xaasir ci sumar jihaadan te limtihaani kon xam naa ma jéem ko wax fi mu toll ci xarwaat ci isib ba dee wab nas sabil dañ koy tënk laliru laan lisrairo bi demal saaru laan ci isibu say xoolu ci nis fa lay sal fu da nga ci fekk walakin il bi mën a amana billahi wal yawmi walakin il biru mën a amana billahi wal yawmi laaxiri wal malaikati wal kitabi wa atal maala ala hubbihi zawil qurba wal yataama wal masaakiina wa ibna sabiili wa ibna sabiili wa atal maala ala hubbihi zawil qurba wal yataama wal masaakiina wa ibna sabiili saalu lisraa'i ci isibu subhaana ci rubu waxda rabbik da nga joxe ko aati sal qurba xaqo wal miskiina wa ibna sabiili wala tubadir tabdiira kaar ruum ci si wala tujaadilu ci nisi faaqi da nga feete fa fa ajsal xul waa qawlu miskina wabna sabi zalika xayrun lillazina yuriduuna wajha llaah yëpp yooyu la waaye bu dee wabdu gis yi nag moom da ngay dem saaru delfi ci saaru laan ci isi bu wazkur woo ci roba ci jëf yi da nga feet xul maa anfaqtum min xayrin fa li waalidayni wal aqrabiina wal yataamaa wal masaakiina wabni sabiil wa maa taf'alu min xayrin dem saaran jigéen mu suut misaay ci fi wal muhsanaat ci ruum wam doo da nga fekk wali jeeri sul xurbe jeeri juri wa saahibil janbi wa bis sabili wa dem saar lan faal ci si wax la moo ci robu jëng dem fa anna wal yataame wal masakini wa bis sabili dem saar baraan mu suut tawba ci itibaan taam ne wala waraadul da nga fekk innamal fuqara innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal masakini la والمساكين والعاملين والمؤلف والمؤلف والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل joojoo tax ñuy wax وابن السبيل فريضة من الله saar xaqrib it bu xad samia ci rub laa tajilu xaw man da nga fekk ma la rahma afa allah rasul min ahli lqura fillahi wali rasul yooyu fi quba wal yataami wal masaakini wa bni sabil kon juróom yooyu la yee mooy wob na yii ñooy wob ni bu dee dog daanu jéego yi dañ koy dañ koy tënk fii xaqalaala ji ji demal saaru lan faal ci si wax la moo ca roba jëkk te wala tabaaxatum laxtalatum fil mihaadi xam nga jëkk na koy dog waaye day aj dikkal ci saaru lan di dang fekk yaar ci isi wama ubariw genn ji mu ngi suru ma wayen tax jab mooy fata saabal xalqu alim xulilaahu xaalihu kulli sayn waxool waahidul xahaaru jooji day aj kenn du ko dog jikko ñaareel mu ngi ci isi bu raxuma yaxlamu turubu masalul fari masalul jannati da nga ci fekk yàlla ma taksubu kullu nafsin wa sa yaxlamul kaafiru kaafiri jooju day aj kenn du ko dog nga jàll saaru taaxee ca isib ba ci ruubu minaa xalaqnaakum da nga ci fekk wala xadaw xëy naa ilaa muusa an isri bi haaji fadrib lak tarixan fil bahri yabasal laa taxaafu daraka wala taxse wala taxaafu ji day aj kenn du ko dog jàll saar su mat ca isim fa man aslama ci ruuf way xaamat sa da nga fekk afman saraxa laa sandroo lil islaam ko wax laa nuwari mi rabbi fooy lul lil xaasiyati jooju day aj jeexale jikko ci saaru mumtihati muy suuratul imtihaani ci ismu qad samia ci nisfu law anzalnaa da nga fekk yaakum an tu'minu billaahi rabbikum wa in kuntum xarajtum jihaadan fi sabiili ibtigaa'a mardaati tusirruuna ilayhim bil mawadda kon xam naa maa ngi koy taxawlu foofu lu ci jub rek ñu sant yàlla lu ci dëng nag ñu xam ne ci ñun ñi doon wax la in uridu illa lislaaha mastataatu ma tawfiqi illa billah li tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh